الخبيد صراطا يستقيم به فإن برام آساسه نسكو قزوى مرام اقتداء درني جبني أنام من الأجفون والخوال والخوالككو قزوى مرام اقتداء درني سنتي أنام من الأجفون والخوال والخوالككو من لي برد جمع عن قوايتها من لي بتغويلها لليل قسقو أمير النبو سليما تارة ولي سغدا تارة ولي ليلى إن صاحبكم منايا أن تقلب أسواء جملتها محاسنا بسوى ليس لي درك والله لو كان سافقت الكرون من قم قد جنيت النبات فيه مستبيك أسكى صلاة وتسليم يسابقها عليه والآل والدغ من ساقها الملك جاد سمانا بسيق ناسيا علمي ولا يسابقه في دار من أرمي مام ألاجي جاد سمانا بسيق ناسيا علمي ولا يسابقه في دار من أرمي ما نال قط سهيم مثل نائله فتال فوق سيوخ دار كلهم مام ألاجي خليفة القدب في علم ومعرفة أغلا وصال فهاس سيقصون لكم أدله بيد صراطا يستقيم به فإن برام أساسه نسكو ما أنجبت بغد أمي سيق سيدنا أبي الخباس مميد العرب والحجم كمثل ما أنجبت تلك الأفيفة من سوج أفي بكريم قل قسو هممي أغني به حاج عبد الله والدنا بغر البكور طبيبي طارد السقم في سر عبدك آزا أنك عين مذاقرات وبار القلق في حكمهم مام الاجي انتم دليل ورا في نهج مالك نائس فجود لنا بالوسل الحليم يا سامك ان تري نيل المنى ابدا فاتبع اوامره والخير لا ترمي ان غاب عنك رسول مستوى سندي او قال عنك ابو الحباس سل كرمي او كنت ساسما ان لسر او لخلو مقاودات اوي سات عن الامم aw kunta saahilalin aw kunta saahadamin aw kunta saa awadin aw kunta saa xumamin aw kaana hanka tariqu rusdi gaafiyatan tasaa dawaama ilal aqwaai wa tuhami faltaqu sudanna baabaha sa sayqi waliduna isanta obu hadima sagli saafaqami ya sayqa anta karimu nasiru duhawa hasa bunayika aatin wa wasu himami tanaalu raa'uka man jaatan la saa abadan min xayri xayrin li aada kunta za xadami maam alaaji qad tuftaka batal mawlaana wa surta mala sil mustawa wa abal habasi sa diyami maam alaaji waayta maa fil butooni kutbi ajmaya li saaka kunta dawaaman mustaka alami li saaka furta suyuqa dahra mun xawidan kullun wa in qaada kullun jaamia siyami naala tijaani abul habasi ayaati قد فاز منا قطوب بالكرامات لآئس الفغر إذ جاءت بسيدنا قطب القطوب قطب القطوب فريدا في المقامات قد مول ولاية سلطان ولاية باب للولايات مفتاح الولايات أقسمت بتوري أن سيق يعملني مدن كهنو هنين كالقبورات مم ألاج قليفة الله رمز الكون روح جميع القلق وهو أضل للوجودات مبرق البرق مركيد الرهود ومم تلو المسون ومن قاسي البريات تلك المكارم لا كهبان من لبن تلك الوراثة من أعلى الأرومات عزمن فاطمة فرو بوتلا سل أحمد القدم محتي للمقامات هذا الذي منه أرجو كل آونة نيل الفتوح وتذيل المرامات أسكى صلاة والتسليم على سندي والآل والشعب زاب للقليقات أخذ البرايا أبو الحباس أحمد من معناه أعظم أن يتلى بقرطاذي قوس البرايا أبو الحبادي أحمد من معنا وأعظم أن يجلى بقرطاذ ساهر كبير حسم الله تغلو إلى يازي وسب أقل حزم ساجد إلى وازي وسر متونا سبابات اللي جيرت يا وحي حيا بهم قد كان إنهازي مرحبا بشيقي تجاني أمينة بقدومي للكون في سواه بأينا سيغو تجاني مرحبا بي بسيق تجاني امينا بقدومي للكون في سبا او شيخ تجان مولد القتم هام نقص تجلى سيدا تاهيرا وهو الذكاء بين سيغ تجان وتربى بين الابين نجيبا ارقد العزيز تقطع آلاء رضي الله عنه تائب نفسي والفهال أديبا حسن سمتين بدون إن جباء باين أنا سيغ تجان سيغ تجان وصف ذات سيق تجان حافظ ذكري وسط صابي هامن عن زيوقين من دون إمكرماء ثم تاق النفس الإمام لهلمي يا لوكو همة له عليا بين والروان مبروك بعد خلوم ثم ربي أتالك ما يساء قاس سيق بقور كل علوم كلا أن دركي الألماء العلماء شيخ تجان عالم مقول لومي ومنقو لن ويفتي في قلبه أدواء ساقي لأن نفسه بطاعة مولاه نسيت في العبادة الأعضاء وهو يرنو مقام كل فريد وبأعضاء تفاوت الأسماء وبأينا سيغ تجان سيغ تجان سنة الرسول بقرب بغدا أنقات أمات القدماء والتواب والد الإمام لست بعد أثر لما أتى الأوباء سرتيان أنجبا خير سيدي صممات لإذا مرآن ومرأة قيداء عام أكن جلاء سيق لباذ قد المال حديث نيم الجلاء بإن سيغ تجان ما كسا سيق في سهار سنينا مقبلا للإله ساك شباء للتلمسان قد أتى درس علما وأتته من ربه الأنواء بإننا سيوتجان لهفته الإمام سنة إعدى وسماننا تسعة الأدواء رضي الله عنه حين لم يبق للإمام مرامي غير ذور العروض ساك زناء كسر رؤياه نبي صغيرا وهو حمري نفيسة قراء أقص سيق عن سيوق في آمن لكن تها منه توى الانتماء أقس سيق عن سيوق في آمن لكن تها من أسوى الانتماء إن النال إمام أكبر فتين هام دوين أتل أنا مثراء أسين النور بدر تلقين ورد بعد أن كان منه فيه باء نصم المستوى لأسلك ورد ورد هذا مأجة بيضاء قال له أستغفر ثم صلوا هللومي أترفجا عليا ثم دام صحائب نور تطرى للإمام

tawlan wa taaba sawa kan mooy seexu tijaan wasfu dhaatil imaami qudha badihan duna a nazmi durri saakal baha rabhatul qaddi abyadu lawni shaykhi masrabul amri saybatul asna o ba engana seexu tijaan seexu tijaan seexu tijaan seexu tijaan seexu tijaan bahrul wilaya seexu tijaan qatimu silki kadna نظمت دراري فيك مدحا ما أتو سوراء راجيا من كل القبول وفك من جرومي فالليلة ليلة محكم نسجي زاد أوس نسبك قد تجلت من وسع صنحاء بأينا ناسي تجان حب سيقي تجاني أرق قلبي فيه عمري دوما لسيقه باء حب سيقي تجاني أرق قلبي فيه أمري دوما لسيقه باء رضي الله عنه حب سيقي تجاني أرق قلبي فيه أمري دوما لسائقه باء ساهي إن يسكران قمر خواء عذيل الكب فيه أم سبحاء بين سيوتيان إنني مخرق ببار حبيبي قرقر كل والبراء والسماء فتبدا قلب الفريد كاد أراه لابسا صورتي فطاب لقاؤه ومرامي من الإمام وقصدي ومن سيقي قد ونال المنى كوني القطب مفردا في سماني جامع للأقوال من لصفاء أدخل القلق حضرة القسي أجلي كلا من سرول مصطفى ومن لصفاء يا إلهي ويا إله البرايا salli ala muhammadin faydulahi inna sayqa tijani mazharu dhati layi haqqan fa innahu babu lahi aynul ayni fi lahi sirri wa kanzi sayqi tijani rabbu samlatu lahi radiyallahu anhu haja fil qalbi kulla sajwin dafinin mawlidun sayqi henda tayba nyaseni رب العباد ولا يموت لا ينبغي سوى أولياء كريم mooy maalikul mulki te mooy waxaabu duhul ku ñooy digal kilay xahaaru moo ñu xamaloon ci coobareem di soowul te bu ñuy fi jëlee xëllëg kon bismil ilaahi maa ngi suubu mandi ma woykat yi xawoon ba jos seen may laa ma xaw ngir bëgg a way barhama bañ xam ne moo doonu rasulullahi ñas ahmadu jaw farlul te dellu xaatir te jéem a wax mi ndeefi kuy suñ waaja ma wax ko ci olaf ngir ñi nampul yaaram te riiri ay mbiram te xam kuy waaja dongo ki yëpp maa ngi leen di jaale xutbu ba dem na coy barama azi yàlla ñu tànnaloon xalilullahi te def ko muy imaamul kulli lawliyaahi yaaram ba dem na moo rawoon diina kenn mos la gis ke moom ne leen ma gongo déglul ma wax fam rawee maasam ga nga daal ne moo doon rasulullahi yow ma alastu la bàyyi rawoon kuy maasam moo njëkk a wax balee gannaaw rasulu ñu dal di koy solal mantoog li maana cappal ko rangal ko garaatul xutbu ya la jiitu kulli lawliyaahi ruuxi yëpp naan bale xalilullahi ne leen bale xalilullahi yar ka fa sellal ko nandal ko fa mbootam xam-xamub diraaya ñu dal di koy tijil mu jàll laaxut laa mislahu billahi maa ko xoolu leeram nga xotti jàlli pey jabaroot fala amee jalaal ba kum fal ngay waaja ñu jël di ñal dam bi nga ne yëpp jox ko képp ko xam nga ne billahi moo la xaajal leeram nga xotti jàlli peyi malakoot fala matee ba motti min ka moslamanki bàyyi moo doonu taaha mooy borom basira ku ñëpp xamoon la min ka mosla xiidoo leeram nga melax jàlli ki jaabul maarifa looloo waral kum yar nga nekk maarif bam fa bakoo la dal di jëm ci naadoot ñu dénk ko suñ ja abdallahi nday sax muy bu ñëpp xam ci diina moo boole maandoo ak jëfoo sariha mu gàddu leer ga dem jolof tay mbokkam mi dénk ko ko suñ maam ja astu jànq koo kaay soxna cara woon cay doona njànq ma raw ma xëy ma jël ndam li maam habdallahi dal di jëm ci saalum bu ram bayan ba gis ko def ko xoodi ñes nekk na gambi nekk na kardamba sanci tayba mooy dalul barxaama xatam bi duuba mooy dalul barxaama ci aw rajab بسم بيوم القميدة في الوقت واتري لقد بواكي سوران كني أرس يبوريد بالله guddi keroog la leer yëpp daldi jolli lislaam a ngay fecc ngir bëggee juddoom ba mawlido ko juddoom ba jar nay màggal mawlido ko Baay Ñas juddoom ba jar nay màggal mawlido ko Baay Ñas juddoom ba jar nay màggal julli jogal màggal ko képp julli jogal màggal ku bëgg a tedd fii ba ñëpp xam la nga jaare aljana jogal màggal ko màggal ko mooy màggal rasulallahi gëñ naa bismi ilaahi bisam ba dellu si baay ba dal diggante jibi la wax ci tur bi maam alxaaji naan ko nanga ko tuddee xaliilulaahi kon da gis ca moom karaamalaahi mu dal di koy tuddee xaliilulaahi sa yooyaat lañ gis ca baay karaamalaahi ndeysaan ñu teg ca ñetti at noonam yàqee ko ngir gaay yu baax indil hidaaya ñu koy fexee kalaame ko waa nguur ga ñoo ngi koy fexee seen dey far na weeru ñi naan sëriñ mamat wéree fënee gi ñoora ko gaay yegg ma mbir mi maam alxaaji ñi na taalibe pëlam bañ daan gallaajo te daan sàmm na kam ya moo feeñal waaye man li ma wax barxaama moo feeñal barxaama cey suñ waajal sa yooyaat la baay njëkk a feeñal xarba ci suñu waaja fil waxtu antri laay digal baayam ba di yow ma lax di ñes laay mooy waaja Abdallahi dal di ndongoom yi ñu jël bagage mi delluwaat fa Gàmbi noonu ñu ñëw fa fekkuñ fa kenn ndeysaan ñu def lu ñaaw taal këram ga taal jàkkaam ja sax na fukki yu mat fa Gàmbi ndigal la del si waat naan ko waajal dellu yow Abdallahi yàlla moo lay sàmm te soo demee dëkkal fa ñoom bul feggu looy def ñi gis ko su yàggee danañ la feexal maam Abdallahi dal di wam dongoom yi ñu jël bagage ma del si yaat fi réew mi ñu nekk na dàgga dem na réewu Mbambo ngir sàmm leer gi ñes bi laay moo farlu mu sañ ci koo ma mel ni waame monom ye dellum gembo aat billahi bam fa boxo la dal di jaari Kaolack képp ki hun gëneel demal ba Kaolack barhama coy waaja sa yooyaat la baa njëkk a xar baa coy waaja ilu waktu matri lay digal bayam ba di yow ma la de ñas bi lay moy waja bam fa bo la dal di jari kawla kep ki hun genel demal ba kawla barhama ci suñu waja barhama nga medde jant sa njabot gi ba soko gise sop ko ngir taram ba fukki atu teglu tut lay habil te digge alquran baraw ki halim ñaar bu kiyat ak ben la talib terem ruhul adab tere bi jomanaari mu jox baay ba baay ba dal di jàng xam lu ca gi rongañam ya dal di tuuru ñu teg ca ñetti yaat ba daanu feebar ta du ko fukki fan feebar ba dal di yokku mu xoon jaboo ke ngir dénkaane xam ne dëxël ba mat na léegi mu faatu mu xoo xalifa dénk ko woon jaboot yi alaaji Babacar la jox jàkkaam ji mu jël téeri yëpp jébbal alaaji mama Zeynabu naan ko yoral ku sàkku alquran nga jox ko kaamil ku sàkku xam xamal ko bul ko gànt séddale naa mbiram ba ñëpp de ku nekk jot jaram mu des barahama cey suy mu nekk ba ñëpp dem mu daal di wóolu bàyyi ca nekk wanaat ba dal di tëj buntu ya lañ wax ja boobu duñ ko wax ci mbooloo yàlla ki kam xaybu te moo ko mbootal dëxal ba mat na bàyyi ba dal di faatu soxna ya muuru ndonga yëpp jaaxle barxaama dal di fay deseg magam ya ñu fab ko yóbbu kuusi jox ko daar fanweeri at la bàyyi feeñal faydu ngir xam le selluk rabbana boromam sëriñ mbay rakam jawoon moo da taawam moo njëkkanaa sa leer ga maan ma weeru maam abdou ñang sey ko omar ñoo xaacu ci aw korité coola farna gàññi seen mbokk ya mer dal leen génne kerak la yendu daam ngir saamu diina fa lañ jullee tusubaar keroog bàyyi du xutuba kàddum gi raw nay xalam si xol yi keroog laay ko ba wax bi aaya laa taqaabu wala taxdanu lii moo waral keroog ñu bi coono ndeysaan du xeetu pël du loobe du séeréer ñëpp a yendu saam keroog ngir jaayante ñes natal nga réewi siin natal na waa Saalum natal na waa Jolof ba jàllu Fuuta natal na waa Casamance bajal gambi basso se za jolay yep mandi li worna se ke bay fini gi banjul tafsir ke babite alaji mambay saler ya poti jall rew muritani nar yep daw hebal fi kodi kanja kanyo ko kaldi wuldu nawe ñaarel basse xane kalaji hadi bañu jonom min ka fini gi kodi ñu bokku sar qulle tanan ko malo la sak fihi ya rasulullah ñi fat di ñew gàmm aga siyaara di andi ay hidaaya ta ay sëriñ lañu sa tab rasul bu jox ni ku ñul moma kamal na rek min kay waja bàyyi ñes na turki tubal na musi tubal ngay ay kata kulleeki jarme tubal na ay yu kenn mandalim mokal na riwi hausa wóor nga saane fal na gammaam ji mos la dégg dalli naatal la nekk bu mos la am naataange ixtalafat alsinahum wal xaqudu mutayidan xaqan li rabbi alhamdu awalakum hawsa wa ablu zarma kasaaka dëggumba alxayru fihi mahama wa jaani yaruba kasaaka muusi wa wangaraa wa jaani man farsi kasaaka katkuli wa farfaraw ataw kasaaka gunjaa wa min alfaydu rawaw wa ahlu gurma wa basan فلا yanga fula gawala aqdu haniwila buransi ja'u kusasa ulubi barqudaqati ذقاتي asalu nasabi باصار أدرى فتي قبائل سقاهم القتم تجاني المدفق الكبير يرمي من بين يعني او منكتم الفريد يالنا نيو عبد الله نسب الله كي نيولو لفتون نيران جيا تدي كو بوكريو يا كو عمل تصوخ جوغول yaay waaja soo ma weddee damal fa néegi combi nga gis lamin ka def soo nga waaru xel mu si jéema taxaw di kabar waxuma laa jàng fa alqur'aana min kaa fa dem mabbu seen xërëm ya tasaare seen jarang ya samp fa daara rëdd fa jàkk mi zikar di noddu xel daya cu jaamu xaram billaahi baa yow waaja kon alhamdulillahi ñu sant rabbana te gëm jéema muñ nattu julit bu xam nattu na gëm dogal muñ te tuub te dellu ci boromam nattub julit bi day yokki maqaama seetal ma awliyaa yi ak yoneen yi kenn mosu fee ñëw ngir lëggéeyal borom bi te ànd loog nattu ya ak balaaya fokk nga jaar ci nattu ya ak balaaya muñ ko ba jot may ya boole ngaram ya diggante aadama ak barxaami dam tey kuñ mosu yónni jaar nga fii billaahi nañ jéem a dëddu xadu naag mborom gi jar la wóolu waaju làmboo ay xor la ku topp taaram yi mu yan la coona doo sa jëlee njëriñ du dul hey yow saa xarit moytul ma yi ma lay tere day ma bu jëf kañaan bàyyil ma ak wax di bon bul hut xarit mbaa àndandoor buy def lu bon mandul ci lépp loo ñaqul ba moom ko dellul ci rabbana borom wërsëg wi hay lum la joxul soo ko bëggee daw coona hey yow saa xarit royal ci ma lay digal fabal kurus gi xawal te yoonu góor ña xamalal képp ku lay julee ab teggin bokk li sa baax ne soo amee defal ko fonkal ma alquran yëral hadis ya loo ci xamul laajal ki xam wax la foo mën a nekk yaa ngi dende ku baalim bul rëy bul ruslu demal nga laaj ko li ñu suñ baay ba daan dikkal ba xëy na mel ñu faw danañ ko fekke baay wal nañu yooni mbaax jàngal ñuy sartaan ya ku jàddu jéngoo billaahi doo réccu njaaraama barxaama ne leen njaaraama moom rek moo xëyoo njaaraama ken man de lim lim fi liggey ci diina yal nañ dess ak barke ba bañ koy fekke ci barke mustafa ne len amina bi hormati siddiq wal waruqi bi hormati nora ine wasi wataine jaw ci lil ci mustafa bi ñep boora ndax yalla def ñoo sa bayri muy fallu suma salatu ala al muqtari ali wa sahbi al aghyar bayno ru nya salay way wal khawsu diina ji tayyib si diina ji tey bay nooru ñas laay way moo di xaw su diina ji tey si diina ji tey bay nooru ñas laay way moo di xaw su diina ji tey si diina ji tey bay nooru ñas laay way moo di xaw su diina ji tey soo yeboo si giita nga naan yaa di mbar ci diina ji ji tey ci diin ki dama ne saa su rekk maam xaliba rakam na ko sa kaaba yalla ga nyanda buru se kama kawa day wax ne se kama wa kum tayul li day war day jina ji tay day wax ne se kama wa kum tayul li day war day dama ne bayi nuru nyas jere jaf yalla yalla yobbu samay dolli lay ngeneel ba mu day li nga def ci dina ji nyas day na dam tayajarawe ay no nyas lay mu ne mi ngi sant yàlla di julli si yonent bi maa ngi seedeloo mbooloo mi yépp ne leen sant naa yàlla gërëm naa yàlla gërëm naa sama sëriñ gërëm naa samay waajur bokk na ci yaatal cant googu te su ma ko waxee ñi xam ko bés bii ku nekk xam na ne jaar na ci yoon tegu na ci yoon lii tubaab yi wax réussir ñun suñ bés bii xam na ko mu ngi fàqee ko ci ñun ci ndigalal Baay Ñas barki sey yàlla yi siid radiyallahu bu mu waxee ne kontaan naa ñépp war nañ koo nangu suma cant ci mbooloo mii mbokk yi xeet wi askan wi taalibe yi tudd ko jiitu woon na waaye damay jagleel cant ñaari sangi jataay bii toog nii ci tant bi kii di Cheikh Maam Alaaji Muntaxa ibnu Cheikh Ibrahima Ñas bëgg Kanta Kanta bëgg ko mu jaral ko lu ne bés bii tey mooy bés bi ñuy siyaare maamam muy alaaj Mohamed Seyni radiyallaahu anhu muy toomaa xam ca kër yoro waaye bëgg gum bëgg kanta jëflante gu muy jëflante kanta mu gën koo rafetal moo tax mu fa mu dem ci boobu ñëw tewee gàmmu Kanta gii ngir bëgg bëgg Kanta xam na ne bii su ko rawee raw na ko waaye bisu maamam bi bu ko rawee rawul ko bët bu set waxtu wu jot xalaatam ñaanam yépp ci maamam alaaji Muhammad Sayni bu radiyallaahu anhu la koy def kooku tardiwu ci maamam mu ne bés bii nag bu ko tardé woon tey tardé na ko dootu ko dabaatal moo ko tax a toog moo tax ñu ngi jagleel ngërëm te di ko sant waaye ñii gërëm ki nga xam ne mooy Cheikh Baye say na li nga gën a siiwee muy ndaw loo xam ne Medina Baye la juddoo foofu la yaroo sëtëb baay Amadou Thiam radiyallahu anhu la moo ñu gën koo xam ci Amadou Thiam nahu kooku xam ngeen lu bokk ci moom bu waxee rek nga xam ne ci la bokk muy baay say na mi ci suma kanam ci la watoo alquran li mu war a jàng ci dëkk ba yépp mu jàng ko génn dem Égypte jàngi lu tax maamam Baye Amadou Diam radiyallaahu anhu daan wax ne may benn borom karawu ñuul di toog Sénégal bañ a génn jàngi moom mu bokk si ñu dégg wax boobu génn dem jàngi gannaaw bu mu watoo alxuraan jàng ci majaalis lam ci jàng ci naw ci fiqu ci luxa lu ci nekk daf caa xam dara njëkk balaa moo génn tukki ba mu demee dañ koo jubbanti rek yàlla di ko dimbale ba mu xam diplôme ci Égypte ci réew yooyu boo demee ba xam diplôme ba hóolu sa bopp dangay ngay bind téere moom ba mu àggee ci foofu bind na téere lan mooy bind téere li ñuy tujjee irtijaal loolu mooy bind téere di xalaat nga wax nga bind seet koo xam ne yaakaar nga ne moo la ci nga wan ko jub na wala jubut moom ba mu bindee téere téere boobu képp kuy borom xam-xam ba nga ko seetee xam nga ne téere bi jub na kooku mooy Baye na mii jarul ñu naan kan mooy Baye Seyna ba mu waxee rek lañ xam kan mooy Baye Seyna wolof dafa wax ne nii laa mel ak naa laa mel lii laa xam ak laa laa xam jaru ko waxal rek booy wax rek ñu xam la arab mu ne waxal ñu xam la baay sey na wax na ñu xam ko xam nañ ko ba mu jógee di ñëw fii si sëriñ Cheikh Mouhamadoul Mahi alayhi radiyallahu anhu hebal ko fii مقام لشي دكب سندار عمر لولا جمسي دكب قصص موي القران لم جك قلاتي قلاتم فوف لن لا فور وقتاني غناب دكب القران لا لقصص القران لا وقل جد رافر جد القران لا كون دالتي القران لا وقتان بام واخي دغنكو li wax ci alxuraan yëpp bëri na ci loo xam ne ñu koy soog a dégg waaye la wax ci taarix ci njaboot ak baay gi radiyallahu góor ñi ak ñi taaw yi ak caat yi lu ci nekk rek wax na ci lum xam néew na ci ñun ñii ku masa noppam toq taarix ci loolu yër naa benn téere mi ngi ci suma kawlal ba sax mi ngi tàmbali di ma xamal naan yaa Fatimata Zahra radiyallahu anhu bés sàngam la juddu ak sàngam la juddu andil ma yu demee noonu muy ay taarix yoo xam ne doo ko jàngee dañ ci gis lu bëree bëri ndax mu ci yaa Fatimata Zahra dem na ba ci muqaddam bi bàyyi seen taarix lam ca wax ma ngi ca téere ba ma tàmbali woon di ko yër kii di Cheikh lim doon wax ci alquran duwul lum kisaati di for di def ci poos bi déedéet dafa jàng ba yëy këyit yi li wax ku yàgg dégg koy wax xam-xam da nga xam ne Cheikh Baye mii li muy wax xam-xam la da nga xam ne téere yi ñoo ko bind ndax kuy wax nga wax ci yonentu yàlla Moussa wax ci yonentu yàlla Yeesa wax ci yonentu yàlla Ibrahim wax ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nga jël yooyu yëpp nag tënk ko delluwaat ko ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa delluwaat ko ci yàlla loolu xam-xam rek moo ko man jàng moo ko man te leeralal nañu loolu kon moom mii di Cheikh Baye Thiam waxtaan wi fi waxtaan kenn ni ma leen ko waxee li sos bés bii sos suma dëkk fii ci Kanta man sëñ Daara Omar Lo moom la ko yàlla yankeewal ne ko bul waxtaanee lu mooy li nga xam ni mooy sabab si sëñ Daara moo la du kantaa te mooy alquran mooy alxuraan alquran boobu nag ci la wax li wax yépp wax na ci loo xam ne sax ñun sax xamuñ ko si woon ndax ki njëkk a bindee alquran alquran biñ ko bindee bees ay xaraf rek la woon xamutoon tomb amul maas ñu new ñoo ko gis bi mu amee tomb xam maas nit ñi soog ko mën a jàng buñ ko tombul woon maasuñ ko duñ ko mën a jàng walla dana jafe kon waaye bañ ko tombee maas ko mu neex a jàng ba nga xam ne boo dalee jàng xat rek nga mën a continuer di jàngal sa bopp ngir fer gi nga fer at ba yu nidoo yi nga xam ne xàmmee nga ko damay wax ne alxuraan bu duwutoon nidoo gi dana naqadee mbokkal te duñ fer ndax su fekkee ne li nga jàng tey boo lëggee leen lañ la jàngatal boo lëgee leen lañ la jàngal ni kon alxuraan duñ ci fer waaye araf bi ñu la jàngal tey mooy liif baataa boo lëgee moom lañ lay jàngalaat mu ne la lii miim la boo lëgee buñ la ko walee nga déngi-déngi ñu wan la biñ la wanoon démb nga miim ñu ne la mi ngi nii moy miim ci loolu ci ngay dox ba fer loolu moo tax ñi njëkk a génnee maas génne tomb ñooñu ñoo génne alxuraan ba nit ñi mën koo jàng kon Cheikh Baye mii bu toogee wax ne ne alxuraan cosaanoo dikk gim dikk ak ni tumuraankee woon naqaree jàng ak li ko feeñal ak li ko bind ak ñi njëkk xelaat bind gi ak ci ko bind yëpp mu leeral ni ko loolu du luñ gisaat ci suuf si luñ jàng ci téere yi la boo yoree téere yi danga ko ci fekk boo xelaatee da nga gis ne borom xam-xam yi borom xel yu sell yi wulul asmi mënuñoo sos de waaye boo sosee boo ca juumee ñu jubbanti la lu leen may loolu mooy alquran kon nag bu ñu yàlla jaglelee alquran ba nga xam ne ku jóg jëm ci ñun boo xalaatee loo war a wax danga naan alquran laa war a waxtaanee kon alhamdulilahi rabbil alamina bañ xamee loolu si ñun kon ñu ngi sant yàlla yéen maa ngi leen di gërëm te di leen sant te di leen ñaanal yàlla ay ndaw ngeen yàlla na yàlla def leen mag nit mbir ne dañ leen di tiitaroo askan wi dañ leen di tiitaroo mbokk gi dañ leen di tiitaroo ndax ñun ñii di wax bu njëkk xamuñu woon dara dañ doon xuus si àll bi rek dem ci dii mos fa dara dem sa dëkk bële mos fa dara ba dajale jàpp ne man nga nga soog a toog ndaw yii nag ñaan ak bàyyi daf leen a jàpp génnuñ seen kër baay yi génnuñ seen kër ndey yi sonnuñ defuñ dara tumuraakewuñ ñaan ak Baay Ñas moo leen jàpp ñu wutu alxuraan moo tax ñun ñuy jàng alxuraan ci coono biñ ci sonn buñ dajeeg ñoom dañoo xam na ñii yàlla moo leen may yàllaa leen ñu jàng sëgg ci suuf xamatu ci suuf topp ci seen kaw xam ne ñoom suñuy sëriñ la suñuy sang lañ moo tax waruñu woon yëkkat kàddu seen kanam sax yéen sang yi toog waaye su ma xol dafa sedd ngir Maodo bi nga xam ne moom la jël mu jàpp ne moom la war a jël ndax ci borom alquran la jël dëkk alxuraan ci la ñëw moo tax mu jël mawduu alquran su fekkoon dam ne mawduu alquran lañ jël ñun dañ daan xalaat lu ne mawduu alquran lu mu war a doon waaye ba mu waxee rek xam nañ lan mooy mawduu alquran xam nañ lan moo tax mu takku ci mawduu bi mu ko teg nii kon bàyyi ñu ngi lay gërëm ñu ngi sant bu baax te ñu ngi lay ñaanal yàlla. yéen ñëpp ñu ngi leen di yàlla ñu ngi leen di gërëm te ñu leen sant ñu ngi leen di tiitaroo ñu ngi leen di sagoo suma cant jiitu woon na nag ci askan wi doom yi jarbaat yi bokk yi sët yi dëkk bi xarit yi soppe yi ñëpp suma cant jiitu woon na si ñoom la ma mooy ñoom ñoo ko liggéey ba ma xam ne liggéey nañ ko ba ma gis ne ñoom ñii ñu ngi may dimbale su fekkoon man rekk la walla sama njaboot gi dong la du mel nii du rafetee nii du matee nii du màggee nii waaye alhamdulilahi rabbil alamina ba nga xamee ne ñépp ñoo ci jàpp ci ndimbalal yàlla mat na rafet na màgg na ñu doon dégloo kontaan nañ xam nañ ne seen coono niirut ndax dégg nañ fi lu jëriñ loo xam ne mën nay saafara seen coono kon alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi gërëm di sant di delloo kàddu gi ki nga xam ne moom lañ dara jaay jataay bi muy Cheikh Mame Alhaji Mountakha Ibnu Cheikh Ibrahima Niass nit mu delluwaat kàddu gi ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bu baax di julli ci yonent bi wa sallam di nuyu kilifa gi sëriñ Daara Oustaz Cheikh Baye Thiam Cheikh Baye Thiam Zeyna ñu ngi koy nuyu di nuyu mboolem kilifa yi teew yépp ci jotaay bu tedd bi di wax ne suñ kàddu du gudd gannaaw ba nga xamee ne Oustaz def na fi waxtaan bu am solo bi nga xam ne def na ko ci lu jëm ci alxuraan te li ñuy takkale ñun ñëpp mooy alxuraan waaye comme ni ko sëriñ daara waxee mu indi ay xissa yoo xam ne ay taarix yoo xam ne dëgg-dëgg su fekkoon ne am na ñu ko xam ci mbooloo mi ñu tumuranke lañ leeral nañu lu bari ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass relation bi nga xam ne am na ko ak alxuraan njabootam gi muy lu am solo te moom bu ko waxee dëgg-dëgg amul benn sikk sàkk na lépp dëgg la lépp lu wér la ndax Cheikh Baye Thiam ku pee bi xóolu la ci xam-xamam ak ci lépp koo xam ne bind nga téere ci jamono Cheikh Alxaaji Abdoulaye Al Khalifa indi taarix yoo xam ne mënoon naa sànku waaye tey loolu yépp dajale na ko ba dafaat beneen téere boo xam ne mbooleem kuy gëstu xam-xam rek yaa ngi ci góorgóorlu bu baax a baax te loolu yépp ci yitteem la kon ku pay bi óolu la ndax moo tax boroom xam xam-xam bu mag boobu nga xam ne tey moo fi waroon a teew muy Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Alioune Cissé di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér mu yebal Cheikh Baye mu matee ko ci côté yépp ci xam-xam ci teggiin ci fasaaxa ci lépp nga xam ne boo ko gisee rek sa xel dafay dem ci yari mag ña ñi ngi koy ndokkeel beneen yoon ci yàlla may gi mu ko may bokk na ci ñu bàyyi mujj déglu alxuraan te loolu nettali na ko léegi waaye ba mu ñëwee ba ci boppam daf ko mbëmbëstal te loolu sharaf la te teraanga gënu koo rëy ndax band bi ñun ñi nga xam ne fekkewuñ jamono jooju bànd bi ba tey ñi ñaa ngi koy déglu daanaka ñu bari mu ci seen téléphone jëmm ju kawe jooju nag nga xam ne mooy jëmmi alxuraan Mawlana Cheikh Ibrahim nga mokkal alxuraan ci kanamam mu déglu la ba wax wax yam wax ci yow ne seddal ngeen sama xol dëgg-dëgg kooku loolu sharaf gënu koo rëy ci àddina mënut leen am lu gën a rëy loolu waaye amut ci keroog maamam Zeyna ci band bi ñu ngi dégg ci jamono jooju. génnee na lu toll ñaar fukki junne ñaar fukki junne ci jamono jooju ay million la yëkkati fukki junne jox ko sëriñ daara bi ko jàngal yëkkati fukki junne ne bàyyi jox naa la lii sama àddiya loolu te boobu sëtam bi moo mokkuloon alxuraan ndeke boobu bàyyi mi ngi préparé sëtam bi ci yu bëree bëree bëri bëri tey mboolem taarixi pee bi rek boo ko bëggee xam ñaareel lu bëri ak relation yi nga xam ne bàyyi def na ko ci biti boo léeree téereem boobu xamsa wa ishirina waa xamsa wa ishirina sana ala raxili nga xam ne bi mu koy taalif mooy ba bàyyi fàddooñ ak jëmoom ji gannaaw ñaar fukki at ak juróom mu bindaat lu bare bare bare bare bare bare kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam yàlla mooy may ko wax ci alxuraan ci baay te baay léppam mooy alxuraan may yim am yépp ci alxuraan ndax moo ne inna sirri kalaamu rabbil mubin ay ilaahi alladi bihi nastainu sama mbóot mooy wax yàlla ji daawa ci islaam kenn mënu koo def lu dul ku dégg alxuraan rek moo ko man loolu moo tax gën gi gën a dégg nit ñi alxuraan te xam ko te raw leen ci ci zahir raw leen ci ci baatin moo tax mu mën a tasaare lislaam dugal ko fu nekk ci àddina réew moo dem ñaareel rek fekk nga fa ooteeb Cheikh Ibrahima Niass àgg na fa ngir lan dégg gim dégg alxuraan ndax daf ne inni aqra'u dhikra a'rifu maa ngi koy jàng waaye dama koo xam raw raw na leen ci raw bu raw bu yéeme la leen raw ci alxuraan bokk na ci rek moom la yàlla njëkk a may doom ju jigéen ju mokkal alxuraan fii ci Afrique loolu bàyyi la ko yàlla njëkk a may Sayda Umm Kalsum bin Ibrahim mi oustaz nettali léegi man jàmbu xeebu bi maa ko ko laaj nako deg na yow yaa njëkk mokal alquran ci doomi baye ci senegal mu shahada bima baye bindulon ma ko tek ci sama bop lan kérok bima téré alquran baye bàyyi na ma waa góor yow yaay jigen di njëkk mokal alquran ci Afrique mom mo ma nettali loolu Afrique yaatu na de dom ju jigen waaye bàyyi dafa bax rek mo mo am dom ju njëkk mokal alquran ju jigen ci alam bi la wax dafa bax rek ndax lépp ndax gars bi mu leen rawee dafa yàgg bàyyi daf leen raw ci zahir bi yépp lépp la leen raw waaye mooy ki nga xam ne mooy njëkk firi alquran ci lugal arabiya ba mu jeex takk muy cheikh ibrahima Niass radiallahu anhu waaye lim liggéey ci xam-xam nga xam ne ay xale yi ndaw di mokkal alquran loolu ci moom la ko yàlla feeñalee la ko njëkk feeñal ba jamono ji muy feeñ di feeñ di feeñ di feeñ di feeñ benn journaliste laaj na ko oustaz dana ko xam ca makkatal mukarrama ne ko ah waa abdul karim Niazi laaj na ko ne ko seen réew moom ndax ñi ngi mokkal alxuraan bàyyi wax ko waaye li ma ci soxla mooy bàyyi na ko man bi may mokkal alxuraan lu ndaw laa te bi ma ko mokkalee ba léegi fàttewuma ko ah kooku mënta fàtte alxuraan ndax mooy jëmmi alxuraan kon dafa raw ñëpp ci alxuraan raw leen ci xam-xam raw leen ci lépp moo tax mi ne wa qad alima al aqwaamu anni mubarrisun wa min maradin jaaru alayya wa axlasu góor yëpp sufiyanke yëpp xam nañ na maa leen raw wa qad alima al aqwaamu anni mubarrisun ñëpp ñëpp nag bàyyiwul kenn ñëpp xam nañ na maa leen raw ñëpp waaw te moo leen raw nag moo leen raw ci taar moo leen raw ci njub moo leen raw ci xam-xam moo leen raw ci dégg alxuraan moo leen raw attaataal téere yim taalif ci domaine xam-xam yi nga xam ne taalif na ko dëgg dëgg moo leen raw moo leen raw te ci zaahir moom moo mujj ñëw ci sëriñ siñ xam ñu bari ñoo ko mag waaye ba mu ñëwee daf leen a raw kon waqad alima al mu anni mubarrizun xam nañ ne maa waaye nag wa min maradin ngir feebar gin feebar jaaru jaaru alayya waax xalasu feebar gi ñu feebar xiis ak ñu moo tax ñu jéng jem ci man di wax lu leen neex waaye nag wan man wa anna ubaali wa rasulu mujawiri ida sadd arbaabu nufusi wa am ah, fadl waaw man faalewuma leen wa anna ubali faalewuma leen gaa yi ma bañ noonu di ma wax lu nekk wa anna ubali nax leen bi mi ngi dëkk man yonent bi man dëkk la sadd arbaabu nufuusi wa ahbaabu mi naan wa inni abdullahi atlu kitaabuhu waaw man jaamu yàlla la te maa ngi jàng téere bi waaye daf koy jàng te xam ko moo tax li ustaaz wax moom rek lañ gis ci mboolee mu fassiruna yi min xaafin ilaa xaaf laa wax mu ñemee gàgganti jalaal keneen defu ko moom rek ko def laay alxuraan yu bëri mu wéral ko mboolem xisas yi ñuy nettali ci alxuraan yu ci ëpp léeg-léeg jalaal ndëggoom rek ci bàyyi mu ne déedéet xissa bi demewutoon nii nii la woon demet ba mu kooku du moroomi gaay eh du moroom moo tax Ibou Diouf ne fu ñu leen kawee damu leen fa wiccëg windeel wi yëpp bëgg dal la waaye barahama doo maas fam leen kawee damu leen fa sidi barahama wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala sëriñ daara mii toog tàggat nañu si moom mbëggeel goo xam ne bët bu set dafay gën di yokk te noo ci gën di waxee ñuy gën di bëgg di gën di kontaan comme ni nga xam ne noonu den bëggee bu daan tukki jam di xaji sunnit yàlla Muhammad sallallahu ba tax mu naan sifaari ilal haadi li zalika afraxu xiraaya liqaa xayril wara wa afrahu Cheikh Ibrahim dëgg-dëgg yàlla ñu ko yàlla fay ñu wax jërëjëfee Baay Ñas ñu waxaa jërëjëfe Baay ñass ñu waxaa jërëjëfe Baay ñass alquran bi ñuy waxtaanee bàyyi mu man ak samay talib ñun ñoy ñukoy koy jàng mu ne boo ko lajal mom bi nahnu ula darasul kitaba, ngay weddi mun le dédét wasal kitaba, dama nga laj téré bi té bo lajé téré bi da nga kër Cheikh Ibrahim ñom ñoy ñu jang téré bi bàyyi dafa firi laaya yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wabtagu ilal wasila boroom xam-xam yi weddi su tasawuf di ko wax ci yonent bi la em bàyyi ne déedéet tasawuf gii ñuy wax dafa am ñetti firi yoo xam ne alquran firiwaar na ko ci biit ñu ne ko bàyyi comme que yow yaa xam lépp ñoo ngi lay déglu waxal bàyyi mu ne alquran mu ne qul in kuntum tuhibbuna allah فاتبعوني يحببكم الله مني يالا مني فكنتني ين صحابي ولا ين قيتوي بغي نين ومان يالا نين توب يونت يالا ما صلى الله عليه وسلم بغي نين توب مو بغي لين كون بغي لو يالا يانكي امي تي توب يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم باي مني لي لاي جي داي تكتلنا وسيله بو ماغبي كوكو مو يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم باي مني القران وخانا نه wasbir nafsaka maa allazina yadoona rabbahum bilgadaati wal ashi yuriduna wajhahu mu ne na nga muñal sa bakkan bi na ko rey not ko ànd ak gaa yaa nga xam ne dañu xoo seen borom suba dañu xoo seen borom ngoon ngir lan ngir am ngir mànne borom yi subhaanahu wa taala ana ñan ñoo fii buñ jullee suba ba pare tee kurus gi di astaghfirullah astaghfirullah di salaatul fatihi di laa ilaha illallah mu ne moo ñoon tariqa bi te loolu dafa leer firi bàyyi mu ne ñaara ngoog firi na wasila ba léegi kon loolu day wan ne tariqa mënta ñàkk kon boo ko génnee ci sunna naan bidaa la yow da ngaa déggut alquran mu ne ba mooy wattabi sabila man anaaba ilayya alquran mu ne na nga topp yoonu ki nga xam ne moo dellu ñëw si man bàyyi mu ku dellu dellu ci yàlla mooy aarif billah yow mi nga xamante ni yaa toog kiiraay fes ak dell ak yow ndey ak baay ak adduna ak leneen leneen leneen bàyyi mu ne alquran wax na la wa tabi sabili man kon xoolal ki nga xam tay tey si ngoon gi moo la doon conférencier bi di wax ne yasxabu cheykhan aarifa almasaliki yaqihi fi tariqi almahaliki yuzkirullah ida raahu wa yusul abdu ila mawlaahu na nga xool sëriñ boobu boo gisee sëriñ bi nga ñëw jëbbal ko sa bopp sëriñ boobu noonu yóbbu la ci ki nga xam ne moo di jëmm yàlla yi subhanahu wa taala te sëriñ boobu kenn moo yeggale foofu si ñi mooy Mawlana Cheikh Ibrahim moom mu ne wa atwi liman qad habbani kulla mahmahin ila al hadratil ulya walaw kuntu ramisa leemal la ko ñëpp donte bu junjee sax nga yegg fa kon kooku mooy Cheikh Ibrahim kon dëgg-dëgg guddi gi mi ngi suri te waxtaan yi neex na jaar na yoon buñ joxee zikarkat yi ñu barkelu bu ko defee guddi gi fajar gi daanaka jot na ñu noddu ñu julli fajar ñu nekk ci kàddu yi nga xamante ni moom moo di kàddu yu mujj yi waaye daayira bi yónnee nee ne am na seen mbokk taalibe boo xam ne moo li naan dafa yendoog moom fii ci tag eh, kii bi di togg mbokk moomu noonu dafa génn àdduna léegi ñu ne ñu ngi sàkk ci mbooloo mi ñaanoo ko yàlla buñ mënee def mu ne bu ñu paree balaa ñuy tëj ñu dafa leen ay doog ñaan leen yàlla ñu jox zaakir yi ñu ko قليل جنب لا فصل قليل قلبي برا مكون لا اله الا الله لا الا الله اني طل كل جدواك سوى صديق اني طل كل جدواك سوى صديق برا جميل جابر الكسري لمن وما قبر مكان لا إله إلا برأه جميل جابر الكسري لمن وما قبر مكان برأه جميل جابر الكسري لمن وما قبر مكان لا إله إلا الله الله جميل جابر الكذري لمن واواك برامك ولا إلا الله إلا الله إمام الأولياء كل في هذا الوقت برأمه إمام الأولياء كل في هذا الوقت برأمه بروت الأرض وتحقيق كبر رواني برام كورا لا ورأم برود ورأق ودقي ورأ رواني ورأ مقولا لا إله إلا الله لا للرضا رميت القطر لديني لآل القصر برآم رميت القطر لديني لآل القصر برآم أغطى لب من لبنا لآل لب برآم كولا لا لا وسكر برآم جميل جابر الكذرية لمن واباك برآم كولا لا إله إلا الله لا إلا الله ما أود الكون بالناس بسر الله برهامه ما أود الكون بالناس بسر الله برهامه أذر أذر لي سري لآلي لا إله إلا الله سري لآلي ذري برهامة لا إله إلا الله إلا الله بديع سرك محمود الله سبا ترك برآم بديع سرك محمود الله سبا ترك برآم نسيع ساكر بدرنا ربيع سيت برآم ترد برآم نسيع ساكر بدرنا ربيع سيت برآم ترد لا إله إلا الله إلا الله أمين الله في الأرض كفيل الأمر برهاما أنت القوض في أرواحي لآل الفوز برهاما كونا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأنت القوض في أرواحي لآل الفوز برهاما كونا لا إله إلا الله ففيض القدم قد بانا وأنت القد برآم ففيض القدم قد بانا وأنت القد برآم ينال الفيض من واباك بتصديق برام كولا لا إله إلا الله لا برآم كمال منا أوفاكنا لمن ياتيك برام كولا لا إله إلا الله لا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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله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 يا لائمي في الهوى وطري ماطرة مني إليك ولو أنصرت لم تلمي سلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله عدرك حالي لا سر بمستطر عن الهداة ولا دائب يا وسلم دائما ما أتني النصر لكن لست أضمه إن المكيب باني الهضال في ثممي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير إني تهنت النصيحة صيب في هذل وصيب أبود في نصيحة تغمي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق فإن أمارتي بسوء مطار من جاليا بن هوير صيب والحرمية وسلم دائما على حبيبك ولا أعد من الفعل الجميل غير في ألم براذي غير متسمية وسلم دائما لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت زرا بدالي منه بالكتم وصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير لكل من لي برد جماع عن قوايتها كما يرد جماع والقيل باللسم وصلي وسلم دائما لكل فلا تروم بالمآت لكثرة شهوتها إن التهام يقوي شهوة النهمية يقال كل والنفس كالتبل إن تميل صبارا حب الرداع والانتقام ينفتمية وسلم دائما الأعمال كله والنفس كالطفل إن تميل صبارا خبر رداء وإن ترتم ينفتم على كل فدري أوا وآتر أنت وليه إن الخوامات والله يسمي أو يسمي خلق لكل ورايا ويا في الأنمال صائمة وإن هي استغلت المرا فلا تسمي رق لكل كم أذن لنة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسمي وسلم دائما أبدا يطلق وصدد إذا من جوع ومن سباع فرب مغمسة سر من التقمية يقلق واستبرقي دمان من عين قديم ترى من المهارم والزمهم يطلق دمية وسلم دائما أبدا على حبيبك لقلق وخالف النفس والشيطان وسيما وإنهما ما حداك النصف التهمية وسلم دائما أبدا على حبيبك لقلق ولا تبدي منهما قسما ولا حكما فأنت تغرف كيد القسم والحكمية وسلم دائما أبدا على حبيبك للقلب كل أستغفر الله من غول بلا أمل لقد نظرت به نصا لسيح قميا لقلب كل أمرتك خير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي قال كل ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أسميا سلمت سنة من أغيا سلام إلى أن يستكر قدماه در من ورمي وسلم دائما أبدا على حبيب القلق وصد من سقب أعطاؤه وطوى كطي حجارة كسحا مطرف الأدمية قال كل وراودت جبال ثم من ذهب عن الضيف أرى أيام صممية يقال كل وأكد سوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تبدو على اسمية وسلم دائما وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وسلم دائما نبينا لا أمير الله فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نهمي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير كل نبي نبينا لا أمير الله فلا آدم أبر في قول لا منه ولا نهمي وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير كل هو الذي ترجى ثباته لكل أوين من الأقوال متهمي وسلم رب دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بعمل خير منفسمية فاق النبيين في قلق وفي قلق ولم يدانه في علم ولا كرم يقال كل وكلكم من رسل الله ملتمد قرفا من البغر او رسخا من الديميه يقلق لي وواقفون لدي عند أديهم من نقطة هلم أو من شكلة الحكمية يقلق لي فهو الذي تم مغناه وصورته ثم استوى حبيبا بارئ النسمية وسلم رقل كل منزه عن سريك في مآسره فجوهر الحسن فيه خير منقسم دمدات نظارا في النبي وكن بما شئت مدحا فيه والتكمية وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق وانتم إلى ذاته ما شئت من صرف وانتم إلى قدره ما ضيت من عدمه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير يقال كل فإن فضل رسول الله ليس له أدم فيعرب عنه ناطق بفمه وسلم دائما أبدا في قلي لكل لو ناصب قدره آياته إذا من أي اسمه كينا يدعو داري سر ممي رق لم يلطينا بما تير أقول به إرضا علينا ولم نرضى ولم نعمي وصل دائما أمنا على حبيبك خير خلق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 أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تمسهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم قساوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقادون الله والذين آمنوا وما يقادون إلا أنفسهم وما يسرون في قلوبهم مرض فصاروا لا مرض ولهم عذاب أليم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 أصدق القائلين مصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن جراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ونجى الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وخبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رداك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعل خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعل ناحلا مصدقا فينا اللهم اجعل لنا ولا تجعله علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا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 صادقا من حل فيه يمنع اللهم احرسنا بعينيك التي لا لا تنام واكفنا بكنفك الذي لا يقفر لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يقفر ولا يضام اللهم نضرب بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وذكرنا وأنسانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وتاعنا وعاصينا اللهم اغفر لنا أجمعين وتولنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا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 di sant yàlla ñuy dimbale ba bés bi mat mat gu rabet gii te bañ ko jàppee ba léegi moom li ñaan yàlla képp ku ci bokk yaa ngi ñaan yàlla bés bi ñëw ak jàmm fekk ñu jàmm ñu tal ko mu mat ci jàmm loolu yëpp yàlla nangul nañu ko bés bi ñëw na daf nañ fi jàmm rabet na ci jàmm lépp nag ñu ngi ci ñaan yàlla mu may ci ngërëmam lu ñu taxoon a toog tax ñuy dajee ñu sonn ci seen doole sonn ci seen xaalis sonn ci seen alal seen xol ak seen xalaat yëpp pour bés bi rafet rek moo tax te bés bi ñu ngi ko jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir màggal junti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sàkku wuñ dara la may ngërëmal bi njëgal ngërëmal yàlla njëgalal yàlla yërmande yàlla ndimbalal yàlla ak am ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sant jaan ak bàyyi suñu way jur suñu yi loolu rek lañu sàkku ñëpp kenn ku nekk ci ñun loolu nga bëgg yàlla la ko yàlla may yàlla yàlla may lañ bëgg ñun ñëpp ñu ngi gërëm ñu ngi sant ñu ngi gërëm sikarkat yi nga xam ne ñoo doon tooyal xol yi te fàttali li nga xam ne moom la yonent wax moom la busur wax ci yonent bi wax ko ci ñu ngi sant tamit ñi xam ne ñoo bàyyi ko bu sori ñëw waaye ñu ngi sant tamit safoor yi nga xam ne ñu ngi dimbale bañ mën a ñëw ci ñëw bu rafet ci ñëw bu jàppandi di ci jiital suñ doom mm, alaaji keewam boobu ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant waaye suñ doom mm, baay seloo ñu ngi koy gërëm ñu ngi sant ak ñeneen ñi nga xam ne jël nañ leen ñu dimbali ñu ba andil ñu képp koo xam ne kii bëggoon ngaa ñëw fii ci ngeen bés bi ngeen fekkee bés bi ngeen màggal bés bi ngeen bokk ak ñun bés bi ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi lay ñaan yàlla waaw ah, fi mu ne nag alhamdulilah sonn nañ bés bi mën na teew nañ ñëpp te ñu ngi ñaan yàlla niñ ko defee ren ci jàmm salaam yàlla may ñu wér ak tal ba déwén ñu defaat ko fii fekkee ak tal ak sago ak dal ñu ngi sant jigéen ñi góor jigéen ñi ndaw yi mag ñëpp ak képp ku fi taw barke alxuraan barke bàyyi jàng faatiya ak ñetti salaat faatiya ñaan mboolem liñ fi ñaan yàlla nangu ko ndax liñ fi ñaan ci xarnu bi mu ñaan bàyyi doy na sëkk leneen li ci des fedd leen rek moo tax ñu def ko waaye ñaan ak bàyyi gi doy na sëkk fàtte ñu di salaatu baati seytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 آلي القدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما لما سبق ناس العقل بالعقل والآل إلى صراطك المستقيم وعلى